yaram baat ma woy jàmbaar yi fi ne woon daanu toolu xare seen sa diyee fi ne tey di kay buumu gàccee gërën buri jëleen hmm. hmm. gëse buri jëleen lat sàmb buri jëleen biram jee maay seen maay waaye buri jële naway seen yaay mi nga yaa di xadi njaay ñu wooye sa yaay alaaji diri sa gaye sa baay baay yaayu Fatou Kiné yaayu Xaadim yaayu Papis Koram yaa ngi ci ummi de sama tante maa ngi koy nuyoo passage tata ummi Gueye ma tante bi ay sa taa kodu samba faat ma ma xuree jaag joor seen ñoom di déwén maawa ngoone faal umi yaayu xaadim euh, waaw Oumy Gueye sunu sama tante la sama sama lépp la <laughs> sori na ci man trop donc euh, nga koy déw ni dikkal ko taara bi waaw moom na ko taara bi moom na ko kon Oumy Gueye moom na taara bi. bi. ma may la nga soufflé tuuti rek ma jukki li li yéen kay yi fësal tuuti waaw mu mu ma jukki tuuti waaw waaw bëgg naa mu accompagner ma dem ma koy wax ndànk rek dee ko kii rek noo leen koy wooyee muy muy na dikk na li <laughs> ay <laughs> lu ne lu ne mooy xew biir sabli mag <laughs> hmm. Le Soleil tey jii euh, ñëw sélection législative yi les Sénégalais choisissent leur député euh, demain 7000 euh, observateurs sur le terrain euh, moom la le soleil dikkee tey jii enquête ñëw si jeu de risque et les législatives capitales dimanche des carrières selon fil de rasoir le taux de participation la grande inconnue ouais. alors euh, l'AS ñëw ci les cachets plafonnés à 75 millions seules deux télé admises mooy ci affaire u làmb yi moom lañ doon waxtaanee ñoom tey Libération ñëw ci conclusion de l'enquête de gendarme 5,4 milliards ont été volés à l'ARTP PRCP faux et usage de faux autour d'un marché de 4,5 milliards de francs l'observateur ñëw ci 450 euh, avocats s'interposent entre Ousmane Ngom et le procureur la guerre des Ousmane aura lieu donc euh, le dimanche des députés référendum Wade Pape Diop quelle sorte pour les religieux la tête de liste de lii dal na xel Idrissa Wele arrêté euh, Il y a aussi le quotidien qui revient. Le DG de MTL propose 1,5 milliard Ndongo Diop fait son offre lundi caution pour sa mise en liberté ñu ñëw ci yenn yi nga xam ne ñëw nañ ci euh, sunu lamb Modou Lo trois victoires par KO Gris peut-être peut-il être le quatrième mais tey à 20h30 la lépp di xew fii euh, au niveau de la deux s lépp lu rëy lañ nar a def déploiement boo xam ne def naa télé mosu koo def ñett retransmission en direct la incha allah. waaw ci làmb ji incha allah final ce dimanche l'Italie face au grand défi espagnol aussi pour revenir un peu sur euh, Nouvel Horizon Benno Bokk Yaakaar l'équation des alliés opposants c'est la une de Nouvel Horizon très intéressant à lire avec notre ami Momar Diong mais qui euh, Nouvel Horizon qui a sorti aussi un numéro spécial les jours de Macky Sall 100 jour Macky Sall nouvelle horizon war na ko def mais am na loo xam ne au niveau de la présidence def nañ seen 100 jours euh, def li nga xam ne bon ñu bëri ñu ngi ko doon naqarlu temps Ablaye Wade foogoon ne dañuy bàyyi presse bi yëpp tëddee njaaxaanaay président toog def conférence de presse mu mais tànn nañ seen i copains ak yooyu def li nga xam ne moo di seen 100 jours mais ñun dinañ def suñu 100 jours à notre manière. ba nga xam ne parce que 100 jours du forcément une interview du président de la république 100 jours mën na nekk jugé li nga xam ne moom la def sénégalais yi nemmeeku ko wax lan la ñu gisee 100 euh, jours Macky Sall te matagul defe naa euh, jotagul la Gazette en tout cas on retient on va faire nos 100 jour nous à notre manière bon en mettant de côté tout ce qui a tout bon. Parce que Wad Tog Nefil Tog 12 ans, il n'a pas accordé une interview, ça ne nous pas empêché de faire notre boulot. Mais bon, on continue. La Gazette, Wad devant la haute cour de justice, Macky Sall oppose. L'exclusif Ousmane Gom, pourquoi il a si peur Dangote, le mystérieux milliardaire bloqué au Sénégal. Icône euh, qui nous revient avec euh, Hadississé, belle et gracieuse, mode Dakar Fashion, 10 ans de succès. Euh, média Adamagay Benobok Yakar, une tendance dangereuse, Euh, topp euh, gël ndey dàkk des podiums à télé waaw man ma dellu si waat euh, ayca ayca booy booy do booy do booy do booy do xalaamal ma <laughs> su neexee dégg naa ngeen wax booy do xalama papale way gile way gile gile maa njar ga yaasin booye jëf kat hmm. se bure ma pal ma bure ma pal ma palale baba mu se bure jakkan musigin buri ko doo nga ba muy dem day dañal ba muy ñëw dañu koo sëf xamul ku daw gile siga xamul ku dee gile gile maa jar da yaa si ngooy jakkan ma yeah. ay demba mag ñi xamoon nañ lu neex de xamoon nañ ko lool parce lii neex na trop si nga doo ñaawee jëng saala dafa du ñaaw mbaye mbéreg sa ge anta kordaana ak joor joor bii geeg joor mbaye joor mbaa xeeg joor mu neex ma ni ngeen koy ni ngeen koy jàng wala la nga jàng yow doo tëb de wax nii rek ci sàmm jabara dama jàng góor googu yàlla yàlla guddal fanam def na ci man xam-xam te xam naa def ci man xam-xam que tey jii ñu ne si tey jii ñu tegoon ci plateau te nga wala wax leen woy leen lii. ah moo tax ma woo la mbaa xam nga joor caam ante juum la ñuy wooyee yaayam bakkan mi ci kawoon yowar waali gàmm alaaji adama caam baayam gouverneur lañ koy wooyee préfet lañ koy wooyee administrateur civil lañ koy wooyee ama caam fatim sey ma gàmmu sëy Pape Alé ku def lu baax am lu baaxe defoo lu ñaaw waxoo lu ñaaw wayit naa la Omar naam da ngeen a may géer géer la ñëpp géwél géwél xam nga géwél am xam nga mooy kan ku ñu yaatal mooy géwél la nga wax géew la ñu hmm. géwél la nga way Mm-hmm. waaw. way sax amatul léegi loolu parce que ñëpp a ngi way. ñun ñëpp ngi way. ñëpp a ngi way géer ak géwal ñëpp ngi way. da <laughs> gis ku génn benn single am ci succès. Mm-hmm. suñu borom nga koy def nga gis ñuy way ay cinquante ans li ñu téye li ñu si fekk si dafa leen fekk si daanu. waaw yow ku fekk si lii. déedéet doo daanu sax am ñoo xam ne mun mënuñ ko nag waaye nag di noonu nag waaye ku ne ak la ngay jël. non mën nañ ko ak manin bi mën mën nañ ko ak manin bi mais dama laa wax benn affaire musicien am musicien yoo xam ne bu man bu ma egsee seen boîte mhm. wóor na yàlla ci xal xalifa mu laa ak sin Babacar dañuy dañuy may jouer saraba wala ñu jouer ma galayaabe wala ñu jouer ma jàngat abarka dem rek baba ak keneen ak keneen ak ñoom Papa Cheikh ak mhm. ñeneen ak ñeneen dañu may jouer loolu parce que lu tax dañuy variété dañuy wàccaat parce que tuuti mbalax boo feccee moom yaa ba ñax da mhm. war a nag dal gis sa nga wàcc nga wàcce ko tuuti waaw ah. Alboury dama dégg ñu ne buuna mu jigéen baasin ñaari buuna rek la buuna Alboury ak buuna Sébou. buuna mhm. <laughs> Sébou ah. mu gën a kuppoon si. ah di woo ci fi mu nekk nii lu dul lu dul tooñ ma. <laughs> yii ma yeewu ma ànda ko ngonda. loolu mooy lan ku la gis. xeeb la xamul yaay kan.